C'est triste, hein? C'est triste. Et puis, au lieu, chaque jour, de détourner des débat. Parce que le Sénégalais est émotionnel. Ça y est, oh. indil ñu ay ay waxi naka sax ndang dañu ci bëgg a tardeloo waa léegi Cheikh Bara Ndiaye c'est un Sénégalais Cheikh Bara Ndiaye ñu doxuñu ko suñu carte Cheikh Bara Ndiaye newul leader politique Cheikh Bara Ndiaye chroniqueur la c'est un sénégalais hein chroniqueur la c'est un sénégalais Cheikh Bara Ndiaye amna droit ci histoire bu tambalé mu gisee ko num ko gisee dem ba jimmi jamono ci ben groupe lolou groupe la du ay audio yu genn yu jangam ab groupe la c'était le 30 mars 2021 jamono affaire Ousmane Sonko au début de l'histoire bu déglu affaire bi toog en tant que sénégalais hein jébbalu wuñ ci Cheikh Bara Ndiaye hein du suñu serigne de nekul leader top ñu ko jox ñu suñu carte de Ousmane Sonko lañu top moy leader bi ñu koy jox suñu carte du Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye mola mor gën mom moy mom moy Karim Xrum Xax moom mooy keneen ak keneen du député du maire c'est un simple sénégalais. bu histoire jotee problème am mu am ci perception mu am ci vision bëri ñu wax affaire Ousmane Sonko aji Sarr moom mu toog fu mu toog ne ah <laughs> ça va est-ce que ñamu ko que laalu ko ah xam nga gars yi dañuy xooñ rek mais premier point de vue yam la parce que loolu dara amagul kenn mi ngi toog a xew am ñu taxaw rek ah Ousmane Sonko damul billaay man mun naa waat ne Ousmane Sonko damu fa ñi ne non si dam na fa kay ñi ne anoon ah, laal la booy bi de non ñam na ko boobu kenn xamul kuy Adji saar kenn musul gis Adji Sarr kenn mosul dégg waxu Adji Sarr li ñu ñëw rek wax ñi ci rafet njort rafet njort na laalu ko ñi ci rafetul njort ne da ko laal ku nekk joxe sa xalaat moom tam joxe xalaatam ci groupe ba yàlla bi yàkkamtiwul moom mi nga xam ne dafa patient yàlla loolu la tudd le patient am na bokk na ci ay turam l'omnipotent l'omnipuissant l'omniprésent

aji ah, <laughs> sar di wax fi cioru di ki audio yi di genn kep di wax mu demat ci même groupe ba sama gaay na ngeen def hi boy sa wa affaire bi nakata ay fat la de waaw ki kan la mon jaay waaw mo dugg ci groupe bi encore fa mu duggon wax mu duggal fa ci début avril bi <laughs> aji sar mo mu nafan parce que man luma gis nangam nonu mais bo demé ba jël premier audio ak deuxième audio jël troisième jël quatrième donc ay doomi xat la ñu newul de mauvaise ñu nekk de mauvaise foi ñoo dem jël premier ak deuxième audio yi rek ñoo génne sànni di xool ku ñu nax nee naa leen képp ku fi caaxaan sa baay caaxaan ba nax sa yaay ba tëddee ko ba ko ci ay fen boo juree doom fenkat lay doon wala ay fen da koy teel a yóbbu ay fen da koy teel yóbbu mais nous, nañu def ba jël premier audio yu mu ak deuxième audio lan motax tax troisième audio bu mu ci biir audio bobu ci groupe bobu wax leen carrément ni euh, Adji Sarr gis naa day fat début bi émotion la demoon léegi nag la raison y a l'émotion et la raison ça y a l'émotion et la raison premier coup c'est émotionnel deuxième coup c'est raisonnable premier coup ku émotionnel nga demee gis benn affaire rek jaxa sa xalaat sa point de vue point dem yàlla di wane di laaral di laaral di leeral ba nga gis ne ah l'émotion dem na la raison moo ñëw nga génn dëgg di ne ah man de gis naa nakate affaire bi ay fan la Adji Sarr kenn laalu ko bu ma analyser lii bu ma defee lii bu ma wax xool naa ni lii ak lii la lii mais loolu tax audio yooyu mi ngi ci groupe moo tax génnewuñ ko donc fii ku fi toog ñu nax la yow la neex nit mo wara jomb rus mom mom ndayam jur ko ci sirat al mustaqim baayam jur ko ci sirat al mustaqim ay doome kharam yu taxawaalu fële di politique di xol kuñu sosal kuñu takal di la fowé man mënu ma nangu loolu mukk adduna bii dinaa fi dundu ba dé du ma musa nangu ku doomu biral bu joge fële bu ko fowé ko xamni yaayam ak baayam ci sirat al mustaqim lañ ko juré yaré ko mu xam aduna yewu Yalla may ko chance bobu non mu mu meuna raisonner mu meuna analyser may setan ay doomi biddo haram jóge fele bëgg ñew bu ma manipuler ci seen politique bu ma fooyee bu ma bañ lo ko xamni ci li la tàmbalee émotion ñew ci raison ci ay fen la nekkon nangu ñew ci dëgg ba paré nekk ci média yi di défendre dëkk bobu ba légui nekk ci média yi suba ngoon ko dégg ba ci di rayante di wax dëgg ay doomi haram yu melni ay Françoise Hélène ngay bëgg ñew bu ma manipuler mais François Hélène maa gën ci ndey maa gën ci il y gën ci lépp kooku bu ma manipuler man sama yaay moo baaxul bu ma ko budul man maa ko manipuler moom mënuma manipuler ci dara ci saayir ak ci baatin kooku man maa il y a manipuler mais moom mënuma manipuler c'est pas possible bu ko defee rek ma xam ni man fu il y a jaar jaaruma fa wàcc naa sama yoon bu dee yoon bi ñu ma tracé dox naa fa ci éducation wallahi bu ma ko fooyewul ma mënu ma fooye tekkiwuñu dara ils sont faux ci ay fen la ñuy dox bu ñu demee lu leen arrangé lañ fay jël indi sànni toog di def nii croiser le bras di xool naan xoolam mouton yi xaaral ñu jox leen tuuti ngooñ ñu yëy di leen reetaan nag di yëngal naan nii <laughs> di reetaan xool xooloon xar yi waaw

Il a agi sur le coup de l'émotionnel, mais après, après l'émotion, c'est la raison. C'est ce qui différencie l'animal, euh, l'homme de l'animal. Ah oui, oui, c'était son point de vue. Mais au fur et à mesure, au fil du temps, euh, bon, il a vu la, la, vérité, bon, il a adhéré à la vérité. C'est ça. Tu Mais négro, harambi, tout harambi, nga xamni, du ñepp hein. kharamata njaay bi nga xamni mom yewul dara newul ci bop bi animal la domestique moom bokk joxe rek falen leen di yëy fas fa dekk di yëy ngooñ bi rek ñepp dem seen yoon bayiko fu mu yey ngoñ bi rek na di laaj repasse ah ngoñ bi neex na de ngoñ bi noy na de ngoñ bi sax na de nasalan ba mom laaj nañ ko mu tak tak tak tak évacuer débat bi dem yonam continuer c'est une honte une honte ça c'est pas un débat mon frère c'est pas un débat Nous, sommes tous les def qui ce que j'ai dit si ci gisee sa un animal domestique je ne parle pas de tout le monde je parle ay au Sénégal Quel mënu ko Il y en a beaucoup de nids qui ont dit ça c'est des animaux domestiques Quand ci dis, sa mais il y man a. ma perte temps ci je suis pas un animal domestique Il y en a plein Donc il y a ay animal domestique c'est tout léegi nag sa bop, la man man je parle pas je parle pas avec tout le monde unanimité amul ma jël ma jël c'est des c'est des animaux parce que man je suis un sénégalais et je ne suis pas un animal donc mënu ma ne c'est des animaux donc je parle pas à tout le monde je parle pas à tout le monde non jamais am agir comme des animaux am agir comme des animaux mais moi je parle pas tout le monde j'ai jamais généralisé j'ai jamais généralisé. Parce que moi, je suis un Sénégalais. Et je suis noir, donc je n'ai jamais généralisé. Tu <laughs> es un animal, essaie de changer, c'est tout. C'est tout. je ne peux pas parler à tout le monde. Sénégal, nous n'y a pas nous nous il nous a pas nous vie. Il y en a plein, ils pas nous vie. C'est ça. mais c'est vrai la raison est Hélène, l'émotion est nègre mais mais il a raison mais tout le monde sait que la raison est Hélène et l'émotion est nègre chaque jour nit bu ñuul bi et quel mënu ko dindi c'est justifié l'émotion est nègre la raison est Hélène, c'est une insulte mais c'est une vérité kenn mënu ko dindi luñ koy dindé moy ñu changer mais Senghor c'est un africain Senghor c'est un sénégalais alors mom mo bind la la raison est hélène l'émotion est nègre te bu suñu jonn yalla tay kenn mënu ko effacer parce que chaque jour nègre bi wane émotion suba ngoon ci lay dox il est manipulable donc il foowee mi ngi ci ay débat inutile mi ngi de temps ci ay futilité mi est ngi ci ay ñi ngi rey boppam ci ay Macky Sall li def c'est émotion ñu fal la pour deux mandats nga toog di ba ba suñu doon moins de quinze mois des élections kenn mënu xam ni da ngay da ngay toog wala da ngay dem c'est l'émotion c'est l'émotion c'est ça on s'attarde sur des futilités sur des détails loo xam ne warul doon sax débat mais les gens sont là du siroter goutte par goutte d'un seen temps c'est tout alors on n'en a absolument rien à foutre On est vers l'essentiel focus sur l'essentiel li ne c'est tout on est fier d'être noir on est fiers ci africain mais nous, sommes suñu exemple de société Nous avons ay noirs yi exemple de société di le bon comportement l'homme noir lu c'est le berceau de l'humanité donc humanisme tu ñun fait fait que nous, Africains, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité quand on parle d'humanité on parle d'humanisme bëgg nit fonk mbindum suñu borom nit moom mooy bindu suñu borom amul lu ko gën c'est tout alors nañ soppeeku nañ góorgóorlu ci suñu boppu di choisir ay dirigeants yu baax suñu dirigeants yi seen honte seen honte dafa ruslu ñu suñu dirigeants yi mel ils sont pas de bons exemples de société exemple ci exemple Satikat, exemple njublan ay dynastie mais là moo ça ça a ñu fi tegee am dynastie dynastie faisal, dynastie faisal Timbo dynastie wad, dynastie Dom, papa chaque jour dynastie yenente kii ay dynastie ñëw jël benn pouvoir séddoo ko sa njaboot lépp ngeen yor ko lépp ngeen moom ko lépp ngeen séddoo ko pàccoo pàccoo alalu réew mi mais c'est honteux c'est honteux c'est triste neexul neexul donc comme le mot c'est ça la rétrospection c'est accepter ton défaut l'émotion est nègre et on accepte pourquoi accepter wul Pourquoi faire un l'émotion est nègre l'émotion est nègre on est super émotionnel ci ay coups émotionnel rek lañuy doxé waaw waaw point koku nit mënu ko dindi doomu adam mënu ko dindi c'est c'est la triste réalité loolu sax du débat bi nak loolu du débat bi et je vais pas perdre mon temps ci ay émotion nègre nangam ak non je vais pas perdre ce débat du perdre fil de fil de l'actualité voilà donc euh, aw ma jot boobu noonu après sama waxtan ku mu neex nga jël ko conceptualiser ko ni nga ko bëggee déggee dégg dëgg moom dëgg lay doon léegi nag nit bi ku nekkul dafa am ñaar ñu koy déglu ku nekk de bonne foi ak ku nekkul de bonne foi donc man mënuma wax li may wax ba pare après bu ko topp ñu nekkul de bonne foi dëgg moom dëgg la léegi nag perception bi ñaari nopp ñoo am dafa am ku koy déglu de bonne foi ak ku koy déglu de mauvaise foi léegi mënuma wax chaque jour ma koy wax sama gars yi ma leen bàyyi leen boo leen gisee benn mbir am junni yu apprécié ak ñaar yu apprécié wul nga bëgg a jël sa temps bëgg a perdre sa temps ci ñaar ñu apprécié wul déedéet loolu c'est s'insulter c'est insulter ton intelligence. Il y a 80 qui ont accepté ce, raisonnement. Il y a 80 qui accepté. Donc 20 accepter accepté. Vous ne perdez pas ce temps. Vous donnez l'élection, le passez d'office. Vous donnez élection vous gagnez. Donc, chaque jour, je me la positivité. Ce nga ne bu ma ci analyser percevoir de la bonne manière utiliser comme des instruments de pensée Nous man intéressés. intéressé léegi nag je ne suis pas là pour satisfaire ñu nekk de mauvaise foi fii boo ne woon yàlla am na sax ñu xool boo ko dugaloon ci internet bi youtube bi am ñu mu arrangé wul dañ naan waay fokk yu waay merde wala saaga la ils sont pas de bonne foi te pourtant yàlla am na rek nga wax tey bu ma defoon benn live rek ne yàlla am na te lu fi waay def yàlla dina la atte barke alxuraan boo ko dugaloon youtube am na ay nit yoo xam ne Macky Sall lañ àndal amna ay nit yo xamni neexuma len buñu ñëw dañuy ñëw fekk ma way nangam tanal ndayam nopp way yow way fes way waayo yow bu ñu sonal wax ju bëri ah. et pourtant li wax amna te xam nañ ko donc ils sont pas de mauvaise foi ils sont de mauvaise foi donc man ñooñu intéressé wuñ ma duñu wax bama arrêté duñu wax bama bayyi duñu wax bama ma ko wax bama ma len xel eh, parce que ils sont pas de bonne foi donc boy xol xolal chaque jour lu may wax ci gars yi booy xool ñi bëgg lu baax. nga ànd ak ñoom waaye bul wax say wax ba pare di ànd ak ñi nga xam bëgguñu lu baax wala boo nee ah ñuy gis leneen wala ñuy comprendre leneen parce que ils sont de mauvaise foi nit yu baaxul lañ ay nit yoo xam duñ gis lu baax ci dara. du dara buñ la bañee bañ nañ la buñu la bëggul bëgguñu la booy wax ñu war ci analyser ñoom duñ ci wax dañuy dégg tëll rek ne damm na wala kàkk rek ne damm na <laughs> ñooñu amuñu ñu seen temps. amuñu ah, seen temps il nous faut perdre du temps ils sont euh, euh dans l'antiquité et que d'une duñu la perdre la sa temps donc man moom nekkuma ci yooyu je suis quelqu'un bu bu droit quelqu'un boo xam ne kenn mënu ma détourner de l'essentiel kenn mënu ma wax loolu ma waxut fenkat moom mënul ñëw ba wax loolu lu ma waxut damay analyser di teg boo ci noo ko jëlee baax na man je m'en fous après la vie continue Ah waay on n'arrête pas la mer avec ses bras doomu aadama yàlla bindul sàkkul Sénégal ku mun a taxaw di wax ba mun ma arrêté yàlla sàkkugul Sénégal ku mun a ku mun a taxaw wax ba ma changé li may wax déedéet loolu munul nekk wow la naa dëgër naa bopp benn doomu aadama munu ma détourné benn doomu aadama munu ma changé loo benn doomu aadama munu ma noppi loo kooku moom nañ ko xam ci man man mii ku yaakaar ne mun nga wax lu ma yëngal wala lu mu mun a arrêté da ngay fenn Donc, sept jours me durent. Ça y est, ni taxaw ko tac tac tac tac on n'arrête pas la mer avec ses bras. ma ci dañ koy dañ déstabiliser wala ci ay wala ci ay donc man je change pas li ma la li ñi wax mom moy nañu focus sur l'essentiel nañu dox ci nañ dox ci dëgg nañ nekk ci dëgg ak koo mun a àndal bu nekkul ci dëgg bàyyi ko fa ak koo mun a àndal te doxul ci dëgg xeex ko xeex ko man noonu laay doxee de waaw du ma doomu kenn du ma cogg kenn du ma mindaanu kenn duma tagg kenn duma ma géwélu kenn dëgg laay wax xaq bil xaq dem sama yoon bu ma tëddee nalaw musuma wax loo xam ne boobu ba léegi maa ngi koy wax tëdd bugguma nalaw wala mënuma nalaw ndax li ma wax <laughs> déedéet amagul de ñëw bu amul bu amee tamit ñëwagul de man moo la musuma wax dara Sénégal fii retourné ba pare bëgg tëdd dina la na ayya man li ma wax na barki Seydina Mohamed mun naa toj Sénégal tëdd fii dina law nan ba laa la wax mun naa wax luy toj toog fii laa dina law faala faala woon lijjantiwu ma c'est man man man maay ku munul déstabiliser man maay koo xam ne bu may tëdd fii dina law panu kafe café nan di nalaw paanu café laay dóor tëdd fii di xarang du ko koo xam ne am ay souci problème wo ya ya lima wax ni luma ma wax assumé ko luma ma wax sama gémmiñ gi lu mu génne dinaa ko assumé même buñ ma don tek buntu safara dama koy assumé donc nay a de a de farfelu, etc., etc. On n'a pas ce temps. OK.